wa inni u'iizuha bika wa suriyataha min asseytaani irrajim rabbi a'uuzu bika min amasaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaqduruun bismillahi irrahmaani irrahim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ni ñoom la yàlla dénk diine ji di ci teg mboolem kilifay aada yi nga xam ni ñoom la yàlla dénk réew mi fa tabaarakallaahu tey nag euh, ñëw gi ngeen fi ñëw nga xam ni euh, déclaration ngeen bëgg ñu def ko ci guddig juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy gàmm loolu dinañ ci sawar lool ndax gàmm nit yàlla yi bi ñu ko nattee dañ ko boole ci ndénkaan yi nga xam ni bàyyi nañ ko fi ñoom ñun Sénégal nag euh, suñu gàmm dafa am cosaan ndax ñu ngi ko jële ci nit yàlla yi nga xam ni ñoo ñu bàyyee diine ji dem lu ëpp téeméeri at ak ñeent fukk ñi nga gàmm fii ci réewum Sénégal euh, te gàmm cosaanam dafa am tegtal yuñ ci mën a joxe fii ci réew mi ba mu leer bitim réew it gannaaw ba ñu defee ay gëstu yu yaatu gis nañ ni li ëpp ci réew yu Afrique yi itam dañuy gàmm comme ñun euh, dalil yi nit ñi di sukkandiku nag bay gàmm mooy dalil yi nga xam ni moom la doomu aadama yi sukkandiku ci diina ji bay jaamu yàlla gàmm nag ñi ngi koy defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yonent boobu moo mottali mbooleem yonent yi yàlla yónni woon waaye moo matal mbooleem awliyaa yi ak mbooleem boroom xam-xam yi ñuy soloo ci àdduna si yépp ci lu jëm ci lislaam kooku nag bis bi nga xam ni ci la gane woon àdduna bis boobu lañuy màggal bis boobu nag at mu jot dinañ ko màggal fii ci Sénégal ren anniversaire boobu jub si ñi ngi ci woo mboolem julliti àdduna bi yépp kenn ku ci nekk kuréel ga nga bokk ci diine lislaam bu ñuy màggal yonent bi ñi ngi sàkku ci yow nga def sa ca kéem kattan nga def ko ci nga jël sa kéem talaay kattan nga def ko ci bu dee boroom xam-xam la nga génn tasaare xibaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nit ñi bu dee boroom alal la ñu ngi sàkku ci moom mu génn tasaare alalam ci jaami yàlla yi te yàlla dong tax mu def ko mboolem góor ñi ak jigéen ñi itam ñu ngi leen di soññaat ci sikkar yi ngeen di def ci guddi gàmm ak salaatu ala nabi yi ngeen di def ci guddi gàmm ak alquran ji ngeen di jàng ci guddi gàmm ngeen yéesal seen pas-pas ci loola te gën koo baril te xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama lépp lu ab jaam def jëme ko ci moom da ciy am payu àdduna fii am ci payu àllaaxira fa la ñu jëm ca yàlla suñu borom subhaanahu nag ba mu dëgmalee yonent bi moog ay malaayikaam ba léegi sax di ci julli ñoom sëlmalaguñ te bàyyeeguñ ñun nit ñi nga xam ni nag dañuy julli ci yonent bi ci ndigalul yàlla di ñaanal yonent bi ci ndigalul yàlla tey jii ñoo aman gàmm gàmm googu nag fàttaliku ak mbokk gu ñu bokk ñun jullit ñi fàttaliku yiw bu yàlla defaloon yonent bi ak ay jaar-jaaram ak ni yonent bi sallallahu alayhi wa def ba taxawal diine ji la ca ëpp loola rek la mag ñi daan daje di ko def dox ci ak mbokk fasante ci ay kóllëre muy loo xam ni rafet na lool ci lislaam waaye rafet na loolu ci gis-gisu doomu aadama boo xam ni xol bu sell la am ñu ngi leen ci soññ comme niñ leen ci daan soññee lii avant première la rek ngir yéen ñi nga xam ni gàmmu seen yitte la ngeen yeesal seen pas-pas te jublu ji te xam ni mi ngi ñëw te jege na daanaka semaine rek moo ci des ngeen fàttaliku ko bu baax ndax fàttali daa war jullit ci moromam loolu mi moo tax ñu leen koy fàttali bërëb yu bari nag yu fasantikoo dinañ fa def gàmm fii ci réew mi kon mbokki jullit yi mbokk taalibe yi gàmm gaa ngi noonu guddig juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi ko xel te taxaw ci taxawinu rafet ci seeni koddaay waaye ci seeni bernde waaye nag la gën moom mooy ngeen bari lu ngeen ciy jaamu yàlla bari lu ngeen ciy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu lañ ne woon nañ leen ko yëkkati muy ay kàddu yu fàttalante eh, lii nga xam ne mi ngi ci suñ kanam te ñu bokk ci ñi nga xam ni ñun dañ koy taxawal di ko taxawee waaye di ci ànd ak ay taalibe yu bari yu nekk bitim réew ak fii ci biir réew mi guddi gàmm insha allahu dinaa ci amal conférence bu mag fële ca Touba bëgg ko ànd ak yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi may suivre ci internet bi moo tax ñu leen doon yégal ni dinañ gàmm insha allahu rabbi di ko yëgal it mboolem jullit yi nga xamante ni ñoom it dañuy gàmm fépp fu gàmm am rek képp koo xam ne mën nga fa teew daal na nga fa teew te jublu ci ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa te bari julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu